ko ci bari nag sincèrement man boobu daal loolu la yàlla dogal ba mujj mu jox ma raison waaye mu ni ma rek ngeen bàyyi xel ci pays africain yi ndax du am jàmm ba faaw nag billaahi li ma du am jàmm ba faw ngeen bàyyi ci xel te ngeen di ñaan di ci boole ni ma ndax loo gis am na noonu waaw loo gis rek am na noon ba ci réew ma ko ba tey ah waaye nuy ñaan ñaan yi moom duñu ko bàyyi mukk la waaye li sëñ Babacar waxoon waaw sëñ Babacar waxoon ñu bàyyi ci xel ndax sama benn mbokk taalibe bu ñuy wax Cheikh Jang daf ko ni góor gi na nga nu ñaanal dañ ñu téye suñu lammi mu ni ko ah, jar na ko nag mu ni ko jar na ko nag ndax li ma gis de mooy ñaan yàlla jàmm mu may la ko nga xëy wax lu la neex def lu la neex ñaanaat ko jàmm pour ëllëg nga wax lu la neex def lu la neex ñaanaat ko jàmm pour gannaaw nga wax lu la neex def la neex mu ne ko loolu nag tàyyi nan ci foog ne loolu mooy li ci nekk tabarkal la tabarkalla la kuy ñaan jàmm fekk def jàmm tax waaye bu fekkee ni def safaan ba la rek du xaw a am solo bu ko defee itam sunu way jur woowu Seydou Saleh tabarkalla ñu di ko bàyyi di ko ñaanal rek ak baax la sama mbokki bopp yi itam waa kër Serigne Murtada yónnee nañ fi teranga bu am solo tabarakallahu ñu ngi ñaan yàlla yokk seen leer yàlla yokk seen kattan yooyu yëpp ci gàmmu gi la tabarkalla ñu di leen bàyyi xel sunu mbokk yi itam nag ñëw fi ñu ngi toog te kilifa lañu ci gouvernement mag ñuy ñaanit yàlla téyele leen ndax itam jigéen rolam ci kaw suuf moo ëpp doole bu góor loolu nun xam nañ ko moo tax dama doon wax nii Euh, dégg naa seen discours yëpp ci journée jigéen ñeeg mais bu ma sañoon bu ñu posé seen problème ñu defe ko ni Maodo waxoon ndax dafa ne woon ñuy dale ci kaw di wàcc ci la ñuy gën a gaaw a gis yoon bi ñu ni ko lu mel nan mu ni Hawa bi muy wàcc bokkul ak Adama fu ñu ko wàcce ndax sunu boromay bañ mu jàppee ko sang seetal loolu xam nga kooku du xalaat ko ci bar ko ci bar moom daf la naan rek jigéen moom na mel ni mbaxane woyofu woyofu woyofu mel ni mbaxane mu ñit waaw loolu nit jëme ko ci bar ba farceur la parce que loolu mooy nga gis doomu jàmbur nga jël ko rek comme mbaxane mbaxane waaw loolu nit teg mbaxane rek kese kese loolu koy baaxul sunu maam Hawa toll fa mu toll ci jigéene ak taar ak bëgg boppam yàlla wàcc ko ci continent bu nga xam ni bu hostile la te mooy Inde élément yi tukkal ndox yi tukkal safara yi tukkal ngelaw yi tukkal dégg nga te xam na ko yàlla xam na ni loolaa fa nekk mais terewul mu wàcc ko fa parce que bëgg na mu xam ne yàlla rek a fi nekk loolu mooy li fi nekk looloo tax ku ku roy sunu maam Xawa dëgg-dëgg rek nekk jàmbar wata ko jigéen ñi roy nag ba mu wàccee sonn na lool seetal fu mu jóge ni mu baree sécurité ni mu baaxe ñu wàcc ko ci ndeysaan planète bu nga xam ne ay ay rekk fa nekk ay ay ay waaw ci jaan yéeg ci gaynde yéeg ci ngelaw leeg ci safara yeeg yëpp waaye mu muñ ko ndax sunu borom ma koy orienté doonte jàngul géographie mel na ni jàng na ko parce que wut naa wuta wut ba dajawaat ak Adam waaye ci la jóge xam ni responsabilité góor ak responsabilité jigéen benn la ci la ko xamee ndeysaan ci la ko xamee mu mel ni kon bu jigéen ñi nattee seen bopp foofu rek daal di am solution waaye yi ma déggoon ñu di ko wax ëpp wax parce que daf dul sotti dafay nekk ak tasalsul nekk ak tasalsul la ngeen ci seen parce que théorie bu dul ak dafay nekk Vous ak tasalsul rek baaxul parce que la ma il y a une théorie, philosophie religieuse, ça ne débouche que sur Khaumalan de Grand Bassam. une théorie, ça ne débouche que sur les pavés des Champs-Élysées. On ne croque pas un caillou. Bye. loolu kenn mësu ko gis moom kay xanaa nag mën a collaborer rek nag mu bu defee jigéen ñi foofu nga leen di natt ci coono si sunu maam xawwa boo leen ci nattee rek ñu xam ni seen responsabilité rëy bi ci des mooy li yonent bi wax nee na néegu couple këru couple nee na ñaari lal rek fa war a nekk lalu ku jigéen gi bu soxlaa boppam wéet lalu ku góor gi bu soxlaa boppam wéet nee na lal bu ko ñetteel ne Iblis tey fanaan waxul Iblis dëgg-dëgg waaye bàjjen bu ca fanaan sax Iblis la waaw loolu mooy ci nekk lay ndeysaan moom bàjjen bu ca fanaan sax booy ba xam ne Iblis piir la ndax balaa jëkk def fa musiba xam nga loolu nag mooy problème yi waaye yii jigéen ñiy wax kooku du du problème ma jaay sama akara ma def ko lii ma raxasal ko tànkam ku la sant pour nga raxasal ko tànkam ah. nu ko mës nga gis góor guy raxasal moroom ma tànkam foo ko gis ni ko sant fait pas loolu aada la baaxul ma ko xanaa yow moom du jàpp ah. loolu kenn du ko def sama benn sama benn wëllëre sama mag bu baax la nee na ma bunt yi ma jàng yépp te jànguma dara ñaar laa ci retenir yàlla nanguwul ko xeeb nit kooku daal moom xam naa ko mu ni ma ndax dafa dox sama diggante ak sama soxna dox sama diggante ak mbër laa woon beneen mbër bu ma doon bëreel mu ne booba laa génn ci xeeb nit mu ne ma sama jabar moom dama dem liggéey ci traite bi nekk traite bi yàlla daf ko barkeel ma am ci xaalis bu dul jeex nee na ma ñëw tabax tabax néegu barke maanaam pour ni mag ñiy def ma defe noonu ndeke néegu barke la ndeke mag ñi néegu jàmm yàlla lañ ko def man maa xamul nee na ba yépp noppee ma jënd tàpp yi defar lalu xànjar yépp yëpp toog di xaar sama jabar ñëwul nee na ba bër set nee na ma xam ni bu ma ko xuloo rek def musiba ne ma romb romb lu ko rekk nëbb sama naqar te maa ngi bëgg a dee ne ma ni ko yow daal yaa soxal rek mën ma woon teel a yeew man maa ngi tëdd rek ndeke dem na te du dëgg ko doon xar ne mu lank nee ba muy ñetti fan nee na mu mel nee na mu jàpp boppam rek nee ba mënatuma ko supporter mu dégg ni sa bàyyi Alaaji Mansour ñëw na dem nuyu ko rek mu ne ma ñom daal seen bir doy na wax ne def ma xol rek xamne dara jot na mu ne yow da nga febar man ko ah, si febaruma dama bërum néeg <laughs> mu ne ma luy lol ma expliqué ko mu ma kon bu suba na yebal sëriñ Moustapha mu ñëw seet si naa defar seen diggante ne mooy ko baax na ma ñëw ne pët na bu ma ko waxee rek àdduna tukki nee ma defar si rek nee dafa ma ne ko waaw nee ma di nuyoo salaamaaleykum nee ma nga ko rek boo ma di xëy ci biir kër ma góor gi ma yebal pour yéen ne xam na ni maa fa dem nee na mu ne ma seytaane si ne <laughs> ma ne ko yaa ma gën di seytaane waaye nee nu xuloo ndànk ndànk ndax bu nu sëñ bi dégg ko nee na sëriñ mu sama ñëw waxtaan ak ñun waaye ku nekk am fee ci position mu ne kon nag ni ñuy bu ngoonee ma jël si leen góor gi xam na fii kër boo xam ne gan rek a fiy dëkk ma yóbbu leen fa ngeen waxtaan nee na ñu joxe sunu accord fekk yàkkamti nañ ko mag sama jabar bëgg tul sama goro rek kenn xamul affaire lay ca ngoon ga mu jël si ñu ñu dem lee sama jabar noonu lii de bu continué woon leenu dee ñu ñaari ñëw ni ko maa ngi bëgg a dee fi mu nekk wallaay ndeysaan ne ma ni ko maa la raw ah nee na tabarkàlla jël nag mu ni ma ñoom ku leen laajate àjjana sax dem safara billaay nee na tabarkàlla nee ñu jox na nag néeg ba nee na tabarkàlla tabarkàlla nekk bay waxtaan nee na sama soxna ni ma gëjë nonu de ma ni ko <laughs> ah, waaw ci suuf moo gën de <laughs> ma ni ko waaw romb jaan nga ne le nu tëdd boog ci romb jaan nee na mu ne ma yow dangaa doof romb jaan gën a ñaw saatuwat li ma si oom yëpp lay yàq nee na ma ne ko am naa ci pexe mu ne ma ban la ma ne ko sàkkoos bi kaala kaala ngi ci ma dagg ko ci digg bi rek oom bu ne ma kaala ko ma sukkur gi mu ni ma daal bi ñu nodd fajar xale bi fëgg nañu ne ndox mu tàng mi noppi na neen nu sangu bu baax julli nee suuti ñu fëgg fëggati ñu indil ñu ñaari ganaar nee na ñu ndékki ne ma ni benn bi doy nanu bi ci des naa ko yóbbul sama goro moo gën ndax rekk mu xam ne ay baaxul nee na ñu gàddu benn ganaar bi yóbbul ko ne mu dinu xeelu waaye ndey dum ni xool xeetu yëpp mu ngi xool ganaar gi lenn bi ci des dama topp sama bakkan village bi ma bokk man rek maa fa doon mbër waaye kenn du ma dëkk ku ma dëkk rek ñu yuuxul ne di ma jox may lekk rek sama jabar nekk fi naan ma watul lekk gu bari gu bari ko dara ne may lekk di lekk ba toll ni bàjjo rek mu ni ma ndeke loolu xew yi na nee na ma jikki jékki rek ci làmb ji kenn du ma dëkk ku ma dëkk rek yu yuuxul yuuxu ñëpp daw ne benn njool bu sew boo xam ne ñëw rek dëkk ma fu ma jaar rek mu def ni ñu ni ma rey ko ndax boo lëgee ku fi ñëwati xam nit bàmmeel bi ku la doon dëkk la ne man dinaa ko rey ne xool ko rekk loos bi sew ndigg li sew te benn sëriñ limiyaas la woddoo man maa ngi woddoo lu mat juróomi sëriñ dëkk jigéen ñi yàq ma jaxet may naan soow lekk yàpp yare di ko fii ne fu ma jaaree xale bi dogalem ne man naa ko rey benn yoon ne ma xool loos wi mu sew lool ma ni ci loos wi lay jëkke damm ko rek benn na ba ñu bëree nee na ma tàccu ko rek ak si ci kaw ne mu aj ma ma puus puus ma puus puus mu mel ni ah, raayu saxaar bu ñu samp ne ma ni way ah lii kat doy na waar kii de nattu la fi may waxee loolu rek benn coup de poing la ma tuur tuuj nee na ma ni lay la na mu dolli beneen la koy mottali waaw naa waxtaan ak moom mu ni man nag xam naa ni kii dof la waaw te comme man boroom kër laa naa waxtaan ak moom rek s'il le faut sax mu bàyyi ma ma daanu waaye ne ma di ko wuyuwuma sax ne di dóor rek bu mujj ma dégg coow li ñëpp di tàccu mais ma ni ay nit ñi ñooy traître nee na tujuh sama waa kër boo demee ñu ngay rek ngi di ci ngi ne foofu laa doon bëgg a xamee na ñu ngay ree xale bi xale yëpp bokk ak moom at yëpp a ngoy tàcc ne man ma fa yëngu muy dóor rek ndeysaan ne bu mujj nag coow li ma di ko dégg ci gannaaw dëkk ba nekk booba maa ngi xam si waaye mu ni ma waaye ndekk xam ndekk dee kenn du ko jàngal nit ci téere ni ma ndeket danga koy jàng noonu ci dëgg-dëgg bi yow man jàng naa dund jàng dee waaw mu mujj xam ne ñëw bu ma kër gi yëguma ko ne ndeysaan ba ca suba sa laa suga ximi wax ximi ba sax ne amul solo toog ne gis naa rek sama soxna mu toog solu ma defee ni dafa timisa jot ndekke bër set la wallaay ndeysaan nee na ma ni ko yow doo timis jaa ngi jot di ne mu ne ma nijaay yow xam loolu xew ma ne ko lu xew lan la mu ne ma nijaay yow yàq nañu la lu ko yàq ku ma mu ne ma fa nga doon bëree man ni mu man ku doon bëree ne sama xel nag di soog ñëw tuuti tuuti ne waaye ba ma xamee li xew yëkkat naa yëkkat yoo xam ne ndeysaan waxuma sax dóor yiñ ma dóor waaye nguur gu jeex gi rekk wallaay ndeysaan nee na nguur gi jeex takk ne xale ba teg dem yoon nee na maa ko mujj gis jànqit maa ngi ca marché ba toog seen ko muy ñëw tuuti ma daw <laughs> mu ne moo tax xebel baaxul baaxul mukk wallaay ndeysaan ne dama naroon rek fu ma toog jéggi taabal ja rek daw daw wuti fu ma làqu ji ne ma maa ngi ko ragal xat waaye ndeysaan mu daal di dugg ci benn boutique rek xam naa ni gis na ma sax neen ni suuti mu génn nag wut si ma ndekk dama doon jëndal guro ne maa ngi daal ci sama xel rey ma ba noppi di ma jëndal guro ba tax na xeebeel xeebeel baaxul waaw xeebeel moom baaxul mukk mukk mukk mukk tabarkalla tabarkalla ba tax na kon nag mu ngoog te itam rek yéen ñi fi représenté président bu ñëwee ngeen nuyul ma ko man nag c'est mon grand ami c'est mon waaw c'est mon grand copain te itam rek mu bàyyi xale yi xel waaw ndax maa ngi photo boo xam ni sama waa kër rek ci nekk. jaarale ko ci yéen ndax yéen a nekk ak moom bu ko defee rek tabarkalla njaboot yi njabootam lañu maa ngi photo boo xam ni tabarkalla ci suba rekk laa ko génne ñuy reetaan noonu photo bi ci prison ba lañu ko jële photo bi boobu Moustapha mii nga ca cellule am Pape Malick a nga ànd ak Ablaye Wade ca seen cellule wife for Subiu, landing Savane, Machineka asked go to the Sona Sukan, Jibir prison. Ruahle Rekni, Lolo Maliam, Mamma Donga Chesa Dinirok, Nyon Jap. Mok. Mok Serin Babakar Tabarkalla. nit nag bu amee coono mm-hmm. ña nga baax li ñëpp bokk ak moom kaso ba mm-hmm. loolu am na solo waaw te ñoom ñëpp a nga jëfoto ba nag tabarkal bu loolu paasee nag sunu doomi bopp ji Serigne Alioune mm-hmm. Serigne moom xam na lu mu doon lu xew a xam na ko te xam na lu mu doon ci moom ndax Serigne Cheikh naka jekk nag yàlla nu boole woon la tabarkalla la nu di ko ñaanal lépp lu di barke maamam ak barke baayam yàlla defal ko ko ndax ku bëgg mbokk la te it kuy doxal mbokk la nu di ko ko seedeel su di ko nangu itam ndax loolu rek a fi nekk nag leneen nekku fi tabarkalla la xam naa ki nga xam ni nag mooy sunu complice mooy maître ma dikkee mm-hmm. tabarkalla xam naa président xam na mooy kan sax waaye daal ku bari yitte la te ku bari yéene la te moo ma boole woon ak moom li ma na nekk sa avocat te na nekk it sa intermédiaire ba tey nag dara yàquwu ci yàlla na jëm kanam loolu rek la nuy ñaan tabarkalla tabarkalla waaw waaw dëgg la farata la farata la tabarkalla la farata piir la ëpp naa ñàkk def farata piir la farata piir la ëpp naa ñàkk def farata piir la farata piir la ëpp naa ñàkk def ndax moom nit mën na néew doole sax waaye na am jom rek waaw loolu am solo Mor Sow Mbaye dafa daan wax wax bu am solo boobu maa ci sama diggu tournée yi bu ma gisee di ma tooñ ni ma eh, boo ko fetaloon tey du suur am tan la daan wax boo ko tey du suur waaye boo ci duggee xam moo ko daan wax ndeysaan moo jur sama doom bii sama doom bu jigéen bi ñuy wax xaar mbay ma jàgg waaw ndeysaan ku ma ku ma taqoon la bi mu gënee di ndaw Ah, yàlla xam na ko waaye papaam ku yéeme woon la dafa am benn doom bu góor rek jaaxale ca ndax ñaari rek la sopp ci réew mi maag Serigne Cheikh te Serigne Cheikh Mbacke sëriñam muy muy seet nag ba xam ku mu ko ciy tudde Serigne Cheikh Mbacke ni ko xam naa ko koy tudde Cheikh Tidiane rek nga ko bëgg a tudde kon booy boo def ko rek benn yoon moo gën pour wax la rek ni looloo xew ci Sénégal leneen xewu fi leneen xewu fi tabarkalla tabarkalla ba tax na yooyu rek maa ngi fàttaliku benn xarit bu nu am bu ñu wax baara loo coiffeur la woon nekk ak noonu ca rue de Dene am fa saalam di wat yàlla dogal am keneen koo xam ni moom dafay woote ni wér du cheikh la amee te gis na ni baara tabarkal la tabarkal la eh, cër bi ko yàlla jox ci ñun moom amu ko mu xund nag dal di dem gisi góor gi amat ba waaw dem gisi góor gi amat ba ci paan ni ko si daal daf ma joxul fayda ci boppam dama gis mu xaritoog baara te baara moom bokkul ak moom tariqa wax a wax a wax mu ni ko baax na kon dina ci waxtaan ak moom foofu ma ñëw rek ci seen Babacar fekk fa góor eh, gi amat ba mu jottali ma yóbbante bi ma ni ko ànd kenn du ko wutal nit ma ni ko baara dañu déggoo dañu déggoo ndax xolam dafa sell dama suma fàttaliku fu mu toogee ba wax musiba ma ni ko loolu moo tax sëñ Babacar dal di ne ah, lu jafe waaw ma daal di xam ni wéyal na loolu waaw naka la ne lu jafe rek ma xam ni wéyal na ko góor gi amat ba it am lu mu ca dégg daka la génne rek te baara dama ko mësuma ko laaj kuy wasilaam ma defe naa ni daan naa gis photon ci maam Cheikh Ibrahim Fall ndeysaan góor ki amat ba ci yitteem mësuma gis ku mel noonu mu dem way baara te kenn ëpp ko woon cër ci tarixa bi seetal loolu maa ngi ko dégg ca mbedd man de ko moog sëñ Moustapha ko bokk sëñ Moustapha di ko aw muy waxe baare man lii de kenn mosu ko gis waaw waaye nag ci wolof rek la daan wéy wéy baare nag coiffeur la woon waaye ma nga naan baariloo coiffeur sa baax gi siiw na te wóoru waaw wallaay ndeysaan sëriñ Moustapha di ko aw seetal loolu looloo tax xol bu baax rek am solo ay sànn ñu soppi ko rek nag mu neexa neex ba nga ni lii li ma doon bare moom dafa mujj rek mënatu ko supporter ndeysaan seetal loolu te kat ki doon boole noonu tarixa bi lay wér dal waaye ku ko yës xol amul maa ko xam waaw maa ko xam may daw ko bil ku liyeeti nag ah waay loolu kenn mësu koo gis baara nekk nekk suñu xarit kenn mën la ko nettali tabarkalla la pour wax la rek nii xool bu sell baax na de xol bu sell baax na de tabarkalla tabarkalla xol bu sell baax na lool ba defee yooyu rek fi ne ngeen jël ko comme héritage waaw ngeen jël ko comme héritage ñun itam lu nu mën jàppale leen kooku noonu la tabarkalla tabarkalla ah xam naa léegi waxtu yi jot nag. jema a ñaanalante yalla rek def waaw kay kokane kan e gor gi nam tal waaw kay nam tal na nga def tabarakallah nu ngi lay baye xel bu baax yow leen fi am yow leen fi am Cerno Muntaga la nu am tabarkalla wallaay taal jërëjëf wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw waaw waaw wallaay ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay taal amin amin taal amin taal amin amin tàll wallaay tàll loolu baax na de tubaarkal la tàll jërëjëf tàll kontaan nañu bu baax a baax ñu ngeen nuyu itam eh, maa ngi jot lettre kayit bi léegi eh, sama tuumay sama basti waaw <laughs> ah, wallaay ndeysaan Abdoul Wahab Mbacke bu Serigne Moursada tabaarkal la eh, jotoon nañu yóbbante yëpp sànq sax ñu ngi koy waxante ba mel ni ñoom dañu xaw xir waaye tabarkalla la ba tey wax na ndax ci daara ji la dellu ak sama benn doom ndeke mi ngi fi moom itam taale si la yëguma ko woon wallaay ndeysaan boobu ba tey maa ngi koy laaj euh, euh, euh, poésie yi def ci man am ci yu nekk ci biir mim yi bi ba léegi wallaay ndeysaan dafa am solo parce que bindu ko am cofeel la tabarkalla nu ngi koy bàyyi xel bu baax xanaa gëj gise rek ak di laajte léeg-léeg laaj ko ñu ne dafa voyagé la xam na ko ak sunu mbokkum bopp mi waa kër Xaaji Maxsin Jóob ca eh, ndax ñoom lañu ma waroon a jox ma jàngi fa alxuraan dafa fekk Alaaji Abdu jiitu leen nag waaw ca kaw la ñu foofu ma ko jox benn yoon ma jàngi ci moom alxuraan Xaaji Abdul Aziz waaye dañu ma paree loon ba noppi ni damay dem kër Maxsin Jóob waaye benn la benn la tabarkal benn la waaye Talla moom dama ko namm lool wax dëgg yàlla moo ko namm lool boobu tey gisuma ko parce que ñoom kenn xamul fu ñu nekk man damay laajte laaj laajte ba ci Idrissa Idrissa xaw ma fu mu nekk wallaay ndeysaan te moom la Ablaye daan yónni ci man <coughs> <coughs> xaw ma fu mu ne ndeysaan maa ngi koy jox ay xalaat na gën i daaw ay xalaat yu baax a baax ci ay projet yu mu am ci culture rek wàllu trois trois religions révélées waaye xam naa trois religions révélées daal ku yow di ci def ndànk daal man <laughs> ma lan la waaye waaye dara ngi ci <laughs> <laughs> xam naa ku man di ci def ndànk ndànk ñu man di ci def ndànk ndànk man na xam liggéey naa ci waaye rek tabarkalle tabarkalle mel ne rek ku yow bàyyi ci xel te rek bàyyi xel la yonent bi waxoon kullu mawlud yulad ala alfitrati salima suma abawaa yuhawidaane wa yunasiraane wa yumajjisaane loolu rek mooy li fi nekk leneen nekku fi bu ko defee it sunu jigéen ñi bopp yi toog la eh, méngoo ay culture ñu ngi ci di doxal maa ngi am sam benn sët bu bokk ci daayira bi nee na ma lekk nàkkaram benn ceebu yàpp boo xam ne mosuma ko lekk fenn wallaay ndeysaan ma ngi salit di mu ni ma maa wallaay wallaay wallaay ndeysaan ma ni loolu dañ koy fàttaliku ma ni ndax maxtaar caam xaaj maxtaar caam am na benn ganaar bu ñu mas a lekk ci tournée moom ba muy am fukki at dama naan ganaar googu nit togg ko waaw defe naa jinnee ko togg ndax ganaar ga daal dafa neex lool waaye ba léegi sëriñ Muniru ni ma <laughs> bu ñu fa dellu woon xam ne jigéen ja nekkatu fa de kon daal defe naa yëf la yëfu rawxaan la de di wax lu mel noonu waaye tabarkal la jigéen ñi daf ci am ñu yàlla sédde togg eh, am na man ci amoon ndey ci ñoo wax yaay nañ si nekkoon fii xaw ma xam ngeen ko la ci Tiwaawan yaa nañ si wallaay ndeysaan jigéen ju sell ci togg daf daan defar fuufu fuufu waaw ah, fuufum du xeeñ waaw loolu rek moo ma ci jaaxaloon ndax xaaj Maxtaar ci am nee na saabu bu xuloo xetu ñam xetu ñam ba gañe ko rek ka togg mënul waaw xaj waxtaar caama ko daan wax waaye yaa nañ si fii kenn mësul gis ni mu mënee togg ndeysaan yàlla boole ko benn maam bu ma am bu ñuy wax maam moor fii daara ju day na ñu di dem ndax ñun daara yëpp lañ daan wër daan nañu dem kër maam góor gi Birane waaye rek maam moor amul lu muy def lu dul ñu defaral ko foofu rek mu bàyyi eh, Ibrahima lekk ko waaye loolu kenn mësu ko gis maam Mor nag ni tey mu dem àllaaxira waaw ni ma man dama koy rey rek ma ni ko ëpp naa def nag booy boo nga muñ mu ni ma mukk mënatuma muñ ndax lekk na suma foofu ah waaye ma dal di dem ci yaa nañ si rek mu defaral ko foofu mu indi ko mu ni waaw kay ma ni ko xanaa furu bi li sa ñaari bëñ yi daña tax mu ne ma ci la de mu ne ma ci waaye nañ si dafa sell ma ne ko dëgg la moom fufam du xeeñ du xeeñ mukk suppu kànjaam du xeeñ mukk te ñun xam nga yooyu rek lañuy seet tabarkalla tabarkalla ndax moo jur moo jur tewo jara xaw ma xam ngeen ko la te wajara benn ñett lañu woon ci Dakar ñu ni ñuy méngale seen silhouette ak seen solenu costume ku ñuy wax président Lamine Gueye ak ku ñuy wax euh, Jim njaay waaw Jim Ndiaye ak ku ñuy wax Tewa Jara tubaab yi jël ko yóbbu ko ca trésor ku amoon taxawaay la tabarkal te mën a sol yére tubaab booba sénégalais yi dañ leen daan joxoñ ci man sol waaye léegi mi ngi dañ si nag waaw ma wax la ko mu ngi dañ parce que dañu wacc wat seen jëleegi nañ ko bàyyi waay ah loolu étranger yi rek ko daan def mais sénégalais daawul wat jëm surtout góor ñi góor ñi bu ñu wat seen jëm parce que bàyyi ci quelque cheveux blancs c'est c'est c'est joli c'est très joli bàyyi ko noonu ndànk ndànk waaye wat ci kese kese ko kenn du ko def waaye joomi tam ah waay ndeysaan xam xam nga Sénégal yi dañu man sañse dañu man sañse moo tax nañu wattandiku wat jë yi waay ndeysaan waaye teewa dafa mënoon solo teewa jara mooy doomu euh, soxna si yaay nay si yaay nay ya, si dafa sell ci togg te maam Mor dafa dafa sell moom lu lu baax rek xam xam nga mom dafa ni eh, mom Ibrahima ay nattoom eh, soo ko waxee mu ni mooy sama géwlu juddu moo tax ma ni ko ma géwlu juddu amul mu ne ah lu tax ñu di ko wax nag ma ko nit ñi rek neex ma ko ay juddu amul lañ mu ko caaxaan baaxul ah way ndeysaan wallaay ndeysaan Ibrahima ni ma xam nga nu nuy def man mii sama papa wutal na mu mbubu julli bu rafet waaye awma lu ma ko booleel dégg nga war a noos nag kon bàyyi leen ma rek ma naxi maam Mor gën de parce que maam am na xaalis man xam naa ko ñu ni ko ay ca mu dem rek di jooy jooy la ni maam awma sax mbubu julli te ëllëg la julli Mamour ni ko ah mu ni ko sëggal ci suufu lal bi mu sëgg mu ni ko gisuloo fi waxande mu ni ko ah kay mu ni ko xëcc ko mu xëcc ko Ibrahima nag ni ci xelam ndeke Mamour fii lay denc xaalisam lii kay su ko yógoon teel a toj waxande bi nee na ma mu ni ma ubbil ne ma ubbi rek ndeke ay yére ci ne xaalis nekku ci e mu ne ma solul tubéy ci ne tubéy joo xam ne maam mooran ko daan sol ci jamono laat jox ne ma sol ko rek xëcc ko ci sama nopp yi nee na mu ne mbaxanaa ngi ci biir mbaxana curu cara ne ma jël mbaxana mi sol ko ci sama nopp yi mu ni mbubb maa ngi fi nee na daal man daa xaw ma lool lan la nee na ba noppi ni ma sëggal ma dee la ne ma sëgg rek mu jàpp ci sama noppi bi domp ko kaatama ni ma bu subaa ci bu julli gi fu ma dajeeg yow te soluloo ko dama lay rey nee na man xaw ma nu may ne gannaaw gi yàlla may ma xalaat yàlla may ma xalaat ma ni naa fexe rek bu ñu xëyee ba ñëpp di dem jumaa ja man ma xëy jaar ca toolu màngo yi dem rek xaar ko ci buntu këram bu ñëwee rek ma jox ko ñaari loxo ni ko ñaanal ma ma dem bu ko defee rek mu bàyyi ma ngir yàlla ma dem wuti sama mbubb yu rafet ji ma sol ko waaye nee ma ñëw rek nuyu ko Eh, rekk fekk mi ngi jóge jumaa ji ma ne ko ñaanal ma rek ma dellu kër ga ne mu ree jinne foofa na nga jinne foofa na tuddul jinne foofa na jime la tudd waaye daara ji di ko tooñ naan ko jinne foofa na ba mu faf bopp bi wëlbati ko muy dàq nit ñi ak yeti weñ waaye comme ñaari bëñ yi dafa deñ yi ci kanam eh, Ibrahima di ko nirooleeg maam Mor wallaay ndeysaan kenn mësul gis lu mel noonu rek Maam Mor nuyu ko rek ree xool li mu sol rek mu ni ko nag ñaanal ma ma daw dem kër gu Maam Mor ni ko mukk danga may gunge gaar ba <laughs> mu ni ma Maam Mor a ko tey ah <laughs> na ma wax wax mu ni ma danga may gunge gaar ba waaye ne boo gisee te Mamor bu daan dem gaar ba dafay jaar ca gannaaw ndax ku discret la ne mu xëtt biir dëkk bi wuti marché ba ne nit ñëpp daanu ci suuf wallaay ndeysaan daf ca jóge feebar yàlla xam daf ca jóge feebar yàlla xam na ko ndeysaan ma ne ko gis nga mag ñi danga ko wax rek moo xam ne waxuloo dëgg ndax sa papa ku généreux la te am na wërsëg la moo tax moo xam ne dangay wax loolu rek waaye amul waaye daal daf ci jóge feebar bi lay ndeysaan maam Mor di nitu yàlla bu nga xam ne boole ca am diplomatie bu la kenn mënul mook Ibrahima doo xam loolu laal ndeysaan ndeysaan nun nag noo dëkkoon ca Saalum mu ñëw rek dëkk seeg si del yi fii ci Tiwaawan waaye daal bés boobu nit reena ba tey Ibrahima nga sol curu carama ndeysaan jaar ca marché ba nit ñëpp dagg topp ko defe ni espèce de théâtre la wallaay ndeysaan ñëpp ko mujj yërëm ndeysaan waaye Maam Mor ni mu bëgge togg gu sell moom fuufu bu xeeñ du ko lekk mukk ma ne ko pourtant nit ñi nee ñu neex na mu ne ma du dëgg mu ne ma fuufu bu neexee dëgg du xeeñ wallaay de xaw ma fu mu ko xame nag xam naa ci yaa nañ si waaw ndeysaan ak a neex foofu wallaay ndeysaan waaye rek Maxtaar Caam nee na saabu ne bu xare xeetu ñam rek xeetu ñam ba gañe ko c'est que ka togg mënul mukk bés bu ne ma wax ko ndeysaan ku baax waay te dégg àdduna Maxtaar Càmm dafa am benn sëriñ bu ko doon propagande pour mu nekk taalibe mu ne ko mukk mosateeg gisati gisateeg mosati mu ne ko am ah, mu ne ko du tax ma wedd sama bopp wallaay ndeysaan jaaykatu pasti ba ñëw fekk mu toog mu ne ko doo jënd pasti mu ne ko màcc naa ba nopp mu ne ko foo jëlee pasti mu ne ko mag tuumay sama pasti ndeysaan walaay ndeysaan moom daal jàmbaar la ndeysaan mu ne ko mag tuumay sama pasti de moom dafa yóbbu yóbbu sa pasti mu ne ko mukk kaay ma may la ko ndeysaan waaye ko amul morom la ba tax na loolu rek moo fi nekk tabarkala waaye maître ma dikkee ku baax la parce que dafa xàmme te xàmme nag am na solo ba tax na moom it rek ñi jotalil ñu président ni ko rek ku baax la tabarkala yéen itam looloy seen cër tabarkalla yéenay sunu doom yéenay sunu tabarkalla rek na yàlla jàppale leen te yàlla taxaw leen yàlla barkeel seen liggéey te nu bokk ak yéen yàlla wutal leen place yu baax wutal leen ko fii bu ngeen màggatee ba xobi daas mu wutal leen ko fële la ko yàlla def bëgg nañu lool ndax seen toog fi fanaan fi ak sanguy jigéen yi ngeen ko bokkal kooku yokk jokk bokk la jokk bokk piir la te ñoom itam am na lu ñu xàmmee ba kon nak mi ngi len di ñaanal bu baax te ñaanal suñu bop suñu bok yi jógee États-Unis itam jot nañu seen lettre rafet na bu mopp da ñoom itam d'accord nañu ci fële kenn bañ ko tuddee ci maison des esclaves parce que rafet rafetul nak avec fekk tubaab lu ko neex rek mu def waaye nak ha c'était le hajj malik rek moy suñu directeur de conscience te comme nee na eh, ku ñu tooña fi nekk xam naa du ko soppi sax ndax nit ñi waaye nu bàyyi ko xel bàyyi ko xel rek tabarkal léeg-léeg nga gis ku nu ci bind leetar tooñ noo tooña tooñ ba waaye teewu rek nun li nu jàpp la nu jàpp Maodo moom lu mu tudd rek <laughs> lu mu tudd rek noon la lu mu tudd rek noon la te tabarkal la mi ngi dund te lu mu tudd noonu la dafa am sama benn maam xaaji du Nuur dafa am xew-xew bu rëy ma ni ko xew-xew bii daal duma ko weranteeg yow dama lay chargé nga ñaan rekk yàlla defal nu ci ndam mu ni ma danaa ko def ku neex la nag mu nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba génn ba mu génnee mu ñëw seet si ma def nii ñaari loxo yi ma ni ko lu xew mu ni ma baaraam new newi na ma ne ko lu tax mu ni ma kurus bi nee na kurus gi la doon ñaane moo new newi baaraam yi mu ni ma bi baaraam mi ngi am deret deret bi mi ngi toq mu def toq toq toq toq bi baaraam bu ñëw mu am fii deret mu am fii deret mu def toq toq toq toq ma indi ma bool bi ma di def ñaari baaraam yu am mu def toq toq toq deret bi fees bool bi waaw ma dal di jog ma dem ci bàmmeelu alaji malik maniko ni ko bi de gis nga mo def ni suma baram yi ma ñaan ñaan ñaan ñaan baram yi yeb gi gene dere legi eh, xam nga limu bëgg ne mu ne ma <laughs> kel xamul loolu lan la dafa xir ci soxnaa sukan bu moom wallaay ndeysaan nee na Maodo ni ko uhm, uhm, uhm, mu ñëw ni ma affaire bi jeex na ma ne ko waaw ah, kay loolu ci gën wallaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis man ñoom rek laa amoon nag samay maam lañu wan waaye sama xarit la ñu woon yàlla xam na ko loolu nag héritage bu am solo la ciy góor góor lu fexe ba mag ñi nekk seen xarit moo gën nag tabarkalla tabarkalla baax na de baax na ayul mukk wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan amin amin yaa rabbi wallaay amin amin yaa rabbi wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu baax na tubaarkale tubaarkale wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan amin amin yal na yàlla nangu ñaan yu baax yi tubaarkale yàlla nangu ñaan yëpp te boole nu ko tubaarkale bu ko defee nag ah, seen cëggal gu yëngoog yéen a xam nu ngeen di ràbbe du dëgg tubaarkale ñi fi toog ñëpp góllëre lañu ولا ري سيني بابا كرسي لنيو ولا ري سيد الحاج مالي لنيو ولا ري سيد شي احمد تيجاني لنيو ولا ري شيخ سيد الحاج عمر لنيو تبارك الله تبارك الله ني نكوي خم من سما مام الله يجوم عليكم يوبون دار والله ندسان سامبا عبد الله سامبا عبد الله الله يجوم عليكم يوبون دار والله ندسان بو من سي دغ دوليم منكو يوسي جهاد في لا يم toppatool ma jumaa ji mu toppatoo jumaa ji ba mu ne konkongoral mu am fa soxna jur ci Alaaji Abdu Kan mu jur soxnaa sukkan mu jur ma pour wax la ni itam boor yëpp la bokkeen ñoom yàlla xam na ko waaw ndeysaan walla wax na ma ko wax na ma ko bés wax na ma ko bés wax na ma bés ni booba sax kër gi jubooguñu mu ne man bëgg naa nga juboo ak sa baay Abdu waaw dafa mel ni rekk tawarkal la tawarkal la ku baax la xol bi de xol bi dafa lewet xol xol bi dafa wallaay ndeysaan wallaay wallaay xol bi dafa lewet ma ñëw di ko seet mu dal ci sama kaw maag Alaaji Abdu ñun ñaar ñëpp la woo ni gis nga yow Alaaji Abdu Cheikh ngi dal ci yow Senghor te waxuloo ko de Senghor a doon bakkan bi waaye yow doo dal ci kaw Cheikh Tidiane mi ngi dal ci kaw Senghor mu ne ko ak ah, dégguma ko mukk man fekk naa waxtaan fa mu dale ba fa mu yem dégguma mu tudd sengoor mu ne ko du ko tudd man xam naa jikkoom du ko tudd daf koy dugal ci aaye yere ka rey ko benn mësu ko dégg ma di ko tooñ nag di ko wax yow da nga defe ni yow rek la maam El jur maa ngi ñaan ci barkeem rek sa digganteeg Senghor mu def xal bu ndaw ci ci sa nga bañ ko bootati ndeysaan mu yëg nag mu am lu mu yëg wallaay ndeysaan dama ko mujj yërëm mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ah xanaa ñu jàng fàtte ba wallaay ma ne ko ay ñu teg ci ñeenti fan rek mu ne ana Thierno Abad mu ne maa ngi mu demal wax ni ko ñaanam ba nangu na waaw ni ko wallaay ndeysaan mu oto ya delloo naa médaille waaw <laughs> wax ko ni ko ñaanam ba nangu na ma ko te ci sa barke laa koy ñaanoon de yàlla xam na ko wallaay ndeysaan góor gu baax la ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan woo na ma ci këram ma toog maag Babacar Diop Mbay Diop Fari Mbay ndeysaan mu dindi benn affaire boo xam ne ni mu yéeme jox ma ko ne ma ma jox la ko rek muy sa ndono ndeysaan waaye loolu kenn mësu ko gis loolu kenn mësu ko gis tabarkalla tabarkalla tabarkalla waaw ko xeroon la nag ko xeroon ci soxnaa sukan ko xeroon la ci soxnaa sukan ndax soxna si yàlla dafa dogaloon wóoluwuma ci kenn mm-hmm. te dafa xiibanoon man rek maa koy yóbbu ci médecin man rek mm-hmm. ba yàlla te ay wu rëy am ndakaaru te ñu tudduma ca mm-hmm. sëñ Babacar ni daal wóoluwul pour bi yoon ma yóbbu ko mu wax ma ko nag ma ne ko ah ne ko yow foo nu jiite baax na ma ne ko foo nu jiitu rek baax na ma ne ko kon bàyyil ma yóbbu ko moo gën mu ne ah damaa ragal mu am ay ayiti ma mm-hmm. ni ko mukk du ko am ci sa barke yàlla at si ñu ñëw naka laa wàcc rek dem Richard tuuti commissaire central fekk ma fa te boobu tubaab la ni ma dal ni dëkk bi mel la tax ma seet si la est-ce que du baax ma yóbbu la nga dellu ci yoon ma ne ko mukk sama yàlla ànd mukk ndeysaan mu ne ak ah, kon baax na nga bàyyi sa xel ci sa bopp ndax daal dama dégg ni diw ak diw ak diw dañu waat ni dinañ dal ci sa kaw wax ma ñetti nit ma bind ko ci kayit xale yi ñëw man leen kii ak kii ak kii nee ñu dana dal sama kaw feek ñetti fan kenn ku ci ne na ngeen ko sakkal pexe waaw billaahi waaye ku ci xale yi dàq rek yaa nga yàkke ji central yàlla xam na ko man ni baax na ndax nit ki moom bu la dee tëkku bu la dee daaw rek baax na waaw baax na danga ko ciy jëkk danga ko ciy jëkk sama benn maam def na ko boo xam ne dafa xëy rek contre sëñ Babacar te defu ko ko ah te di sama maam dëkk ak man ca Saalum fu ne mu dem fa naan sëñ Babacar si dañ ko dot mënatul gën dañ ko dot parce que nga gis nit yàlla ku toll noonu di saaxibul waqt ngay wër naan dañu ko dot te loolu dafay tàng euh, xolu taalibe baaxul baaxul waxtaan ci góor gi ma ni ko jógal dem Dakar ba mu xam ni yow malaaka sax mën la dott waxuma la nit mooy mooy mooy tukkeem bu rëy ba waaw kenn ëpp ko fit waaye te dafa neex moo ko Abdourahmane man dem leen jël yi sama maam nag ma wax ko paqu maamam